déglu rek sa jëkkër bu feebaree ñu ni la ñaareel mooy tax mu wér yow nooy def ñun la ñaareel moom bu dee doo koy gisati. billaay da la bu dee dootoo gisati. da